8 h Fiti, studio Big New à Ligue Festival. ci eh, tànge gu rëy démb ca hôtel Radisson Blu benn waay moom wate ne am na bom bu fa nekk di waaj a classé waaye ci mujjantal loolu dara amu ci nawet bi wéy di yóbbuy bakken ca diwaanu Matam ñaari xale yu bokk neeg bay ñoo lapp ci dëkk ca Orkadiéré mu nekk léegi ñaar fukk ak benn nit yu faatu eh, ci eh, Matam di nawet bi tàmbalee ba léegi liggéeykatu ama Sénégal yi fii woon di sàkku nguur gi fay leen seen i payoor yi mu leen deseel toll ci lu ëpp ñetti milliards ci sunu xaalis médecin yi di tàmbali tey ñett ñetti fanu wa waa di nakaru jafé jafé yi ñuy nak ak acte trois décentralisation rax si dol yi di sakku nguur gi sàmmonteeg déggoo yi ñu xaatimoon gëstu tay bi di focus bi jëm eh, ci jëflante diggante police ak askan wi sabab li eh, di ndaje bu police di tàmbali tey ji tuddee ko les mercredis de la police nous toftal ci xibaar yi tegat yaram Malal Junior Diagne eh, sen, dossier économie walum, koom-koom soxna Mantouré lañ ci àndal laata ñoo journal bi ak li ci yéenekaay yeeg Mamadou mohamed, Ndiaye. ñu ubbite ñu ubbee journal bi tey ca Matam ak euh, ñi nga xam ne rek ñoo jot a faatu ca ndoxu taw bi mi ngi yokk ba léegi. Euh, fi mu toll nii nag toll nañ ci ñaar fukk ak benn nit ñu ñàkk seen bakkan bi naan bi tàmbalee ba léegi euh, daanaka saa su ne ay nit di lab ci dekk deex ak si deex ak yu ni mel ñi ci mujj nag di ñaari xale yi ndaw yoo xam te ne ñoo bokk ndey ak baay ñoom nag dañoo lab ci benn dëkk ca dëkk bi di Orka Jare leerale Kaliba Ndemia. Abdoulaye ak Idrissa Diallo mag ak rakk lañu ñoo bokk ndey ak bàyyi ki ci njëkk am fukki at ak benn keneen ki am juróomi at ñoom lañu gis ñu faatu ci benn déeg bi ca Bondji Bamambé fare ci arrondissement bu Orkadiéré ñaari xale yi ci àll ba lañu demoon yóbbu jur ga waaye seen waajur bi ñu toogee ba ñu weesu julli timis ñu constaté ni ñoom ñibbisewuñu ba tax ñu daal di sumb ay recherche ba ñu wëree ci wërwëraanu këba lañu daal di gis seen ay yëre ak seen ay dàll tege ci wetu benn bu déeg noonee ñu jëlee seen ay lamp la ñu gis ñaari corps yi ci lañ jokkoog su préfet bu Walfadjri ak élément gendarmerie nationale bi ñu ñoom it buup ñaari corps yi ñoom ba ca morgue bu nekk ci centre de santé bu Kanel fi ñu leen bi nga xamante ni ci xibaar yi nga moom la administration locale bi di joxe boobu ba léegi jamono yi nag mu ay njombe yi nga xamante ni xew ci boo xam ne du benn bi nga xamante ni kilifa yi yor nañ ko lu manqué yi di constaté dégâts yi di enregistré ak li wax niveau central bi ni a nawet gi tëddee ak ay njombe yi muy indi saa su ne mu nekkoon seen tàngoo Ali Bandel Niang fi ci doon Matam pour RFM RFM xibaar yu wér te dëgg leneen ci wàllu xibaar tiitaange gu rëy dem ca hôtel Radisson Blu li ko waral moo di ne benn waay mu woote téléphone ne nag am na benn bomb bu fa nekk te bu ñu deful ndànk yàggatul dafay daal di kalaate taxoon nag ba police daal di foon taxawaay waxtu waxtu fu nekk ñu seet ko waaye loolu ci mujjantal gi amul commissaire central bu Dakar commissaire Abdoulaye Diop di dalal xel kan wi Jo Mahone. tere dañ def benn barrage fii ñu kenn du dugg quoi parce que dafa am benn benn bomb bu ñu. donte tiitoon nañu lool fële ca hôtel Radisson Blu ca njeexteel ba. ba amufa amu sen xel dal pour les informations on n'a pas encore. Euh, man dama doon ñëw xool xibaar yi rek xam li fi xew mujj gi ñu ne ma bomb amu fi sama xel dal na. damay ñibbi nii sax mais dinaa fi dellu si waat ndax lépp leer na fii amul dara Sénégal jàmm fi am Sénégal jàmm fi am am na kaaraange. oui bien sûr je m'appelle Valérie Bergia je travaille pour Air France lu war ci juróomi waxtu police 17 ndax bomb am na foofu ca hôtel Radisson commissaire central bu Ndakaaru Abdoulaye Diop ne poste alerte rek la woon. jàmm ak salaam moom lañ fi fekk amul lenn loo xam ni war na mën a faagaagal doomu aadama lu nekk sur place. manam def nañu fuuy partout mais. fausse alerte la. jàmm ak salaam. 18 heures depuis 18 heures 20. donc mais am na yoo xam ni aussi vraiment yéen xam yéen a ma ko gën a xam c'est une info c'est ça relève de l'information sensible mënuma ci détailler sincèrement xibaar bi taxoon askan yu bari foofu lool ngir nemeeku li xew kilifa yu hôtel bi moom bëgguñu wax dara ci mbir mi je maroon mbir moom sax mu ñu yóbbu ci focus bi jëm ci wàllum police rawatina jëflante diggante waa police ak ñii di askan wi sabab li moo di ne nag waa police dañuy door tey ci yaay ndaje waxtaan yi ñu tuddee les mercredis de la police ñoom nag waa police di sàkku ci askan nuy ñuy nag di saa yu ñu gisee lu leen jaaxal ñu daal di koy yeggee police rawatina ci jamono joo xam te ne li ñu wër wàllum karange geeg yooyu nekk na loo xam ne lu doy waar la police di sàkku ci askan wi saa yu ñu am na loo xam te daal seen xel xam ne jotee ñu yeggal leen ko ki ko xam ne woon nag mooy directeur de la sécurité publique mu waxoon lu ni mel nag gannaaw waxtaan mu sekkoon ak RFM Kumba Bay police lu koy dundal mooy xibaar wala luñ ko soufflé waaye bu fekkee ni du dëgg te ka koy def tey ko lu bon la ci moom ndax day tax ñi war a jóg bu ëllëgatee duñ gaaw a jóg day tax itam ñoom seeni jumtuwaay yi ñu waroon a jëme fenn yépp mu tasaaroo day tas itam seen doole directeur sécurité publique di Omar Mal di sàkku ci population yi ku ci gisati loo xamante ne ni ñaaw nga ci njort rek nga daal di gaaw woote fa nga war a muy police wala gendarmerie wax leen ko ndax lu leen di dimbali la dinaa ko wax dinaa ko waxaat mooy maanaam renseignement maanaam xibaar yi ñu ñu war a jot xibaar yi nga xam ne moo war a jógee ci askan bi ñëw ci ñun lu am la solo askan warul xaar maanaam ba ñu ñëw ci moom moom bu loo xam ne jaarul war na mën a jog wax ko dox ko ba fànq loolu léeg-léeg police def jaloore joo xam ni day déparé ci nit ku leen woo képp ni leen gis nañ fi nangam gis nañ fi nangam mu xaw ñoo jaaxal waaye léeg-léeg itam ay nit ñu xamut lu ñuy def di kaf ak ñoom di leen wax yoo xamante ne ni ay caaxaan la te loolu luy nasaxal seen liggéey la diggante policiers yi ak wi nag ku ne dangaa soxla sa morom ndax fu wuyaa yooyu jibee rek policiers yi la ñuy xalaat ñu ñëw lijjanti ko waaye léegi-léegi itam rëq-rëq mën a am jóge ci wet gi wala mu jóge ci wet gee am ay jeexital yoo xamante ne nii yu doy waar lay doon ma ko Macoumba Beye lal nga wax sax loolu askan wi dëggal nee nañ nag euh, police euh, donte sax bari yenn saa yi ñu leen wàllu waaye itam ci seen wàll liggéey am na ay rëq-rëq yu bëri yoo xam te ne saa su ne ñu ngi koy dund ak ñoom di ay mbir yu ñuy ñaawlu reportage Ousmane Gueye picc sax boo koy rey sax di nga jël sa temps nank nank mais nga ñëw rek génnee rek góor billaay da ngay da ngay rey nit te tiit def dara Ibrahima mere bu baax a baax sunu police yi suy wax ci ñoom xolam day tàng jër mu gis ne wéguñu Sénégalais yi mala sax boo koy rey sax da ngay taxaw takk ko orienté ko bu mu baax jublu ko péeko nga rey ko mais nga ñëw rek nga tël mu dee jàppewul nit ñëw rek xool nit bu mu neex la nga dóor ko bal mu dee loolu koy jàppee woo ko nit parce que yàlla weñ yi di naaw sax ñoom tane nga taxaw bakkan mu tàng ne bakkan nga jël bal dóor ko mu wàcc polise yi dooree bal askan wi daa fekk ne nguur gi moom moo ànd ak ñoom ci xalaatu Alassane moom tamit dëkkee Grand Yoff Arafat. góor gi moom moo leen a nu mu leen bëgg a jubbantee da leen di jubbanti moom daal na wax ak armée bi ñi xam ni ñuy doxalee ak doomu aadama yi parce que ñoom li tax ñu solo du pour rey ñu dañ leen a solal armée pour ñu aar ñu mais buñ leen solalee armée yi pour ñu aar ñi ñoom ñu mujj tourné du rey askan wi day mel ni ñoom dañ leen kaa sant quoi pour ñu wàññi askan wi. étudiant bi yëgul àggul ci kàddu yooyu lee lenn dong moom moo ko soxal ñu saytuwaat tàggat wi. man su ma fee ñu xoolaat formation bi ndax lan yaakaar naa ne police bi ne pour euh, aar nit ñi wàllu leen waaye pas di di leen di euh, di leen di toroxal di leen di buntu xatal bay rey ay nit su ma sañoon nag état xoolaat li ni mel jël si ay matukaay ndax bu beneen yoonatee incident yi jot am ni dootul amati. bëgg-bëgg boobu mu bokk ak ñëpp ñi nga xam ne waxtaan nañu ci seeni kàddu faw police soppiwaat bu baax a baax doxalinam te bàyyi naqaral ñi nga xam ne ñoom ñoo koy fay di askan wi. Ousmane Gueye diggante police ak étudiant tamit ku ne xam na ne nexul ñaari wàll yi di faral di laale tax ba étudiant ñoom d'accord ñu benn ñu taxawal ab police université dañu loolu andi tey andi ci ëllëg reportage yi ñu baax. ay way takku der foofee ca université bu ndakaaru jarlu sax ñuy sori ci làcc wi étudiants yi ñu bëri en tout cas bëgguñu ko. boo calme tuuti mbir yi bañ fee agité yenn yoo xam ne jël yenn décision yi ala xat. tey boo fi indee police au lieu que mu réglé kaaraange fii nii yi day indi su chaque la fi indi xeer. ku ne nag du joxe sa xalaat ci laaj wi. non waru ko warul am mën a am parce que entre étudiants ñun xamante ne duñ nañ ay situation yu gën a difficile lii te teewul dañoo ànd ba tey entre étudiants moom sëñ bi na xel dal lu ñu jote jote jote ñooy àndaat parce que ñun ñëpp ay ay bokk ci parti bi kii bokk ci parti bi ba tax suñu jafe-jafe warul tax daal ñu installé fi police ànduma ci. ab police foofu ca université loole boo amee dafa rek yokku fitna diggante étudiants yi ak way takku der yi lii mooy li leer bi les ñu tas ak moom sax muy jàngi. damay maanaam damay ñaawlu bu fekkee police bi nga xamante ni moom la ñu xam mm. police bi nga ni at yi dañoo yàgg am histoire histoire bi nga xamante ni ay xeex la histoire ray bi nga xamante revendication yu étudiants yi jot def yëpp si victime yi nga xamante ni tey police def nañ ñi nga xamante ni tey seen bakkan jël nañ ko fi. bu dee nag police war na am foofu ca université étudiants yi neen na am waaye nag bu ci benn élément bu police nationale bokk ñoom li ñu bëgg mooy ab police boo xam ne dafay taxaw ci seen kaaraange police bu responsable te jege leen. pour RFM mooy di gaaw ci xibaar yu koy ya eh, ci xibaar yi ak liggéeykat yi newoon ci kër gii di ama Sénégal di nag société bu doon yëngu ci wàllu mbalit mi ñoom tey ji daañu door ab xiifal li ko waral mooy daal koppar yoo xam te ni nguur gi daf leen ko yoreel ci seen wàllu payoor nee na nag toll na ci lépp ñetti milliards ci seen gis-gis sax ci di président Macky Sall joxe woon ndigal ngir ñu lijjanti dossier boobu waaye ba fii dara sottiwul la SAMES di syndicat bi ëmb médecins Sénégal yi di dox tey beneen grève ñetti fan ñoom nag euh, médecins yi di ñaawlu jafe-jafe yi ni dund jamono ji ndax acte trois bu décentralisation euh, tax sax bàyyi médecin ñu leen di dàq ci seen poste waaye tamit ñuy sàkku nguur gi sàmmonte ak déggoo yoo xam te ne xaatimoon nañ ko ci euh, atum 2014 coow ca Dalifort di coowal suuf terrain bu toll ci juróomi junni mètre carré lañ jox nag benn waay ba sax mu commencé di liggéey waaye askan wi nag ànduñu ci ñu dem sax ba daal di daaneel miir ba waa nag daal ñuy porter plainte Saliou duñ ko bàyyi mu tabax mukk waa ji waxee benn gàcco can waxu ñu dëkkee fi jege terrain bi lay terrain bi mu ngi nekkee quartier Touba bërëb bi mu ngi faree ci biir commune bu ñuy wax Dalifort bërëb bi lay mu ngi làng ak autoroute à péage bi lay yaatuwaayam toll na si minti junni mètre carré juróom-ñaari téeméeri juróom-ñett fukk yoon wi képp la askan bu dëkkee fii mën a jaar Tahir Guèye mbedd bi nga xam ne ci la ñuy génnee suñuy liggéey fi la camion yooyu ñuy liggéey fi ñuy jaar lépp lañuy jaar bu xëy xëy ñëw andi ay bantam di ko samp pour baaree fa pour tëj ñu su ko tëjee na amatu bu ñu génnee bi mu ko samp mu samp pare ñu jëpp ñu tëj waa ko mi ñëw daaneel ko li may wax mu tey ay kër yu bari ci loxom Mamadou Fall moom mooy borom fii nee na nee na terrain bi la ci atum 2009 la ko gouvernement bu Sénégal fayé sama kayit yëpp dama naa tribunal bañ dellusiwaat ak sama jugement jox ko kadaas jox ko impôt domaine kadaas defaral ma sama kayit defal ma sama plan cadastre rek lépp titre foncier titre foncier bi numéro baa ngi nii 22 677 DP mu war a sécuriser sama terrain li ñu ñi ñëw lu ñu fekk yàqu léegi nag dama leen yóbbu ci yoon xam na réew mi réewu yoon la ngir li le lépp leer police bu Pikine jot naa convoqué ñaari wàll yi yëpp alxames gii di ñëw Salif Sow Dalifor ngir rajo Futur Media. Euh, Salif euh, Sow euh, avocat yi layul Karim Wade di janoo ak taskatu xibaar yi ci diggu bëccëg yi ñoom nag ñu nar a àddu ci seen recours bi ñu def te Cour suprême war ci sëgg nag suba ci alxamis ji ñoom nag ñu sàkku daal ñu neenal daan gi nga xam ne teg nañ ko seen client ci fàttali li CREI dafa daan Karim Wade juróom benn atu kaso gannaaw bi ñu koy tuumaal ne daal ñu koy toppee mbirum am am bu lewul la muy kàddu yu xam tane mën na yëkkati coow professeur Amsatou Sow Sidibé moo ko yëkkati moom wax ne président Macky Sall lu déglu ay conseil am nee na sax moom moomu di professeur Amsatou di Sidibé bu ko Macky Sall déglu woon ba muy dem université xëy na li nga xam tane xew na ci loolu yëpp du ci xew tax muy sàkku mu gën ko may nopp di koy déglu ñu déglu professeur Amsatou di Sidibé ci micro Moussa Amar Gueye dama am benn jikko lu may dugg dama ci dugg ba jeex man duma kat moo tax man ni président de la république bu doon sama sago mu gën ma déglu ndax man Afrique dañ ma dégg déglu ma ni monde bi dañ ma déglu su ma nekkee ci wetam dama bëgg mu déglu ma waaye dégluwu ma na ma war a dégloo ci mbirum université ngeen wax doyul ci fànn yëpp fànn bu mu ko laal rek bu ma ko laajee dinaa ko jox orientation boo xam ni du ma ne du juum de waaye la muy juum du bari waaw ministre conseil nag loolu mooy rôle université nekkul waru nekk milieu de violence waaye dama ni président de la république nag su fekkoon ni laaj na ma sama xalaat ndax man jàngale naa fanweeri at ak juróom université xam koñ ruq yeeg mbébat yeeg coono yeeg mbégte yeeg yëpp bu fekkoon ni daf ma woo ne ma damay dem université loo ah rek ci sama xalaat bu gàtt la ma ca xalaat naa ko def de na mu gën a rafetee mu nekk doon xibaaru tàggat yaram yi dañ ñëw ànd ceeg Malal ci ñëw jaan Malal ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alaaji Njóogu Jeen ñu nuyu itam auditeurs yi daje doorax lu jëm si wàllu basketball ak euh, juróomi tat bi journée play off tey jii euh, ca Ndar jàpp nañ fa jongante buy dox diggante euh, Saint-Louis basket club ak waa Dakar Université Club ñeenti waxtu la ca stadium Joseph Gaye ca Mbour ci wàllu jigéen ñi ba léegi Mbour basket club moo fa dajanteeg waa Jaraaf waaye laata boobu la jongante ca góor ña ASFA moom dina fa fekki waa Mbour basket club ba jongante ba ñoo ko jàpp bu ñetti waxtu tegale fanweer ci ay simili wàllu basket yi itam dem jàppale ni gaynde jigéen yi kat nañu amal jongante xaritoo diggante ak u US douane yi nga xam ne nag mooy góor mu nekkoon euh, jongante bu doxoon diggante gaynde Sénégal yi jigéen ñi ak U20 góor yi waa douane yi waaye gaynde gaynde Sénégal yi ñoo mujjekkoon euh, amop ndam ci ñi nga xam ne ñoo di waa AS douane yi ba mu jeexee nag entraîneur bi di Moustapha Gaye ni am na lu mu njàngat ci euh, la xale ya wone ak itam loo xam ne ko fasale teg ngir kon jubbante ko joyante yéen ci taxawaay Moustapha Gueye la ñuy déglu. mën a jëloon am ñu ñu lu bari ndax ñooñu mën donc peut-être zone bi ma leen def moo leen euh, xaw a kii équipe bu équipe bu baax la. match bi dañ ko tegoon pour euh, évaluer équipe bi ci ci mu toll actuellement euh, ndax am nañu ambition def ñeenti match fii ak stage yu douze jours yu li waral bu njëkk bi ma amoon ci ay appréhension mais gis naa ne xale yi réagir bu baax par rapport ak euh, li ñu yaakaar bu baax c'est bien c'est bien je trouve vraiment euh, réagir bu baax équipe basket amul naagu amul taxaw il faut toujours continuer à travailler à corriger améliorer sensation collective yi rek moo ñu moo ñu manqué mais entraînement bi physique bi technique bi yooyu ñaxtu na ci bu baax maintenant il faut ay match pour retrouver suñu ay automatisme boo seetloo parce que match bi dañ ko def zone test zone mu doon benn suñu armée après yeneen match yi ñu xool ñu koy ñu koy améliorer ñu jàpp nag ni ba match ba jeexee Awa Gueye nekk ci équipe bi moom wax nañu dafa daaje rek dem euh, ñibbi France dootul mën a bokk ci euh, Jeux africains ak Afrobasket bi ndax clubam daal duñu ko woolu ci lu daa jàmp ngir mu ñibbi si wax na nag lu tax mu war a dem daa ji nag jeexal carrière internationale am noonu le ñu déglu ko Awa Gueye ci micro Sore Thiam métti na parce que quand même def naa lu nekk ci basket gagné naa lu nekk te dama bëggoon terminer sama carrière pour euh, gagner championnat d'Afrique qualifier peut-être sama dëkk ñu dem Jeux olympiques yàlla attu ko dama koy sante yàlla parce que tamit sama club France daf ma soxla on a tout fait fédération bi def na lu ne man def naa lu ne mais il faut que ma rejoindre sama équipe d'ici le 13 euh, damay arrêter sama carrière internationale léegi basé wu en France continuer sama championnat foofu teewul sama xool ak sama xalaat xalaat yëpp mi ngi si équipe nationale bi mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci samay joueurs li ma leen di wax chaque jour wax naa leen ko léegi jàppalante leen na leen parce que équipe baa ngi fi envie baa ngi fi dem leen jusqu'au bout incha allah rabbi ndam bi dina ñëwaat incha allah loolu rek la am pour ñaan

pentathlon moderne discipline la boo xam ne dañ ko amal fii ci Dakar bis ni ki kon juróom-ñeenti fan ba fukk fan ci weer bi muy kon tournoi zone 2 bi am na ci nag ay équipe yoo xam ne dinañu bokkoo ci zone 2 bi ñoo bokk ci lu toll ci juróom-ñeenti réew woo ci tam réewum France ngir ñoo bokk ci waaye la mooy euh, pentathlon moderne ñu dellu ci Mamadou Fall techno moderne tur bi mën na jaaxal sénégalais yu bëri ndax yàgg ñu koy dégg waaye discipline sportive bi moom am na ndakaaru sax mooy dalal lii di tournoi wu zone 2 bi Tandaxa Ndiaye directeur technique national bu discipline boobee du ñu wax lan mooy pentathlon moderne. pentathlon moderne dafa di sport boo xam ne juróomi discipline ñoo ko euh, mu di euh, li nga xam ne moom la naan tir mu di pistolet yooyu laser mu di itam escrime mu di équitation mu di natation ak course à pied. moom nee na wàllu matuwaay yi. dinañ ci def seen ngir yi jaar ci yoon. que dañu bëgg à la face du monde que même championnat du monde mën ko organiser ñun yi nga jël déjà dix pays ñooy participer ci championnat bi ci dix pays France en hors concours parce que dañu ko invité de compétition mais moom ci dernière journée ba lay na ni jël ci ay élément am chance la yoo xam ne mën naa ne intact lenn rek moo xaw a metti tuuti moo di dañu doon xaar athlète militaire yi nga xam ne dañ leen sélectionné woon wante ba léegi xëy na leerul pour seen libération ñu mën a ñëw ak yooyu le ndam bi nag ñoo ko jëloon à Banjul championnat yu mujj yi bi yoon gam gam bi moo jëloon deuxième waaye championnat bi xam naa ni gagné ko moom du loo xam ne ni dana metti lool lool lool waaye gagné ko avec la manière mooy metti ndax manquement yooyu nga xam ni moo am si suñu côté. li muy sàkku rek moo di nguur gi dimbali fédération bi bu baax ndax ñu ngi waajal li di championnat d'Afrique yi yi am ca Caire Égypte euh, te budget bi maanaam tollu na ci ñetti millions ak neuf cent mille. Mamadou Fall ñu jaax ko kon El Hadj ak Di Maria bi nga xam doomu Argentine tey ji leen koy xaarandi ca Paris ngir nak mu signé contrat am gannaaw ba mu nangoo ñu dafay jógee fa nga xam ne moo di Manchester United ñu nag ci wàllu xaalis daal. lañu ci duggal alaaji njogu mat na ci juróom benn fukk ak euh, juróom euh, ci million ci xaalisu euro loolu nag bu ñu ko doon xayma tey ji ci wàllum CFA euh, foog naa ni alaaji njogu dina bëri lool. comme bu doon a doon la. waaw bu bëri bëri sax jaajëf.

ci wàllu njàng meeg njàngale mi tolloon na ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñu teg ci fukki at ak ñett mu mel ni daf ko yokk ñeenti yoon ba mu mat ñeenti téeméeri milliards ba weesu ko sax gannaaw ba Macky Sall nekkee ci bopp réew mi mu xaw ko wàññi tuuti indi ko ci ñeenti téeméer yu manqué ay wàllu pourcentage professeur Ali Tandian nee na loolu du ci yëy yàbbi ndax ay calcul la yoo xam ne ñu bëri dañ ci réer jafe na ci man pour wax ni loolu la ñuy joxe ndax nguur gële fi jóge waxoon def na quarante pour cent ñi fi ne tey nee nañ def nañ trente cinq pour cent moom li ko jaaxal moo di lu tax alal bu bëri bi yëpp